moom ci loolu. léegi enseignant communiqué est-ce que aussi attention euh, communiqué bi man j'ai un problème avec le communiqué. comme ni nga waxee comme ñun ñëpp nous avons il aurait dû revenir avec une décision. mais bien sûr. parce que déci dafa jël décision et mais bi yoon. il la la responsabilité sur lui jusqu'à preuve du contraire. Mm-hmm. léegi ci lay ñëw nii léegi. moo tax quelqu'un comme Abdoul Mbaye pense que li conseil constitutionnel njëkkoon dogal ba tey moo fa nekk. mooy le 31 parce que boobu moo am la signature ou les signatures de sept membres. damay nangu damay nangu li loolu loolu nga wax noonu parce que fu mu ne nii suñu fekkee ne dañuy dañuy appliquer état de droit. Mm-hmm. kon convocation bi nga xam ne moom moo tax ñii di raw seen bopp di daw. Mm-hmm. le 24 bu ñu demee war ñu fekk dara. war ñu voté war ñu le 31 la ñu war a voté ji te fu mu nekk nii gannaaw décret bi génn na ba ñu publier ko dans le journal officiel ça suppose que suba bu ñu nee non finalement le 31 la ñu koy def il va falloir ñu defaat beneen décret bi abrogé bi. absolument absolument ñu war a dëkk nag ci Sénégal ci décret. sur décret décret ci décret donc ci confusion boobu la ñu nekk te ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ak Sénégal yi bëgguñu leen wax li am. dañ leen di wax rek voilà euh, euh, le front démocratique ne veut pas d'élection parce que c'est des frustrés ak yu mel noonu mais nous êtes nous nous défendons un état de droit ñu ñi nekk ci front bi ay magum jëmm lañu Sénégal moo ñu ñor. man nag front bi nag euh, man d'accord naa ak yéen de mais man front bi xam nga lan moom si gêné. Mhm. yéen ay spoliés ay recalés. Mhm. man d'accord naa ngeen ànd. waaw man vraiment seen compagnonnage benn moom a gêné mooy c'est le compagnonnage avec. le PDS Karim Wade et le moi ça me gêne parce que. mais mais yéen bokku leen yéen yéen bokku leen sax parce que. tey ah, gaa yi du benn gaa gaa dañuy xaaral ma ñëw gaa dañuy maasale. gaa dañuy maasale dañuy jékki-jékki ne Karim Wade ak ñoom est-ce que vous voyez. un peu lecture bu gaa yi def Karim Wade. Mm-hmm. kenn jàpp ko ci parrainage. Mm-hmm. Karim Wade jàppuñu ko ci leneen. Mm-hmm. Karim Wade double nationalité mooy problème. d'accord yéen yàlla dogal na yéen amu leen problème boobu noonu. waaw mais yéen benn problème ngeen am. mooy nañ leen compter lee. seen parrainage nee ngeen baaxul. léegi yéen man vraiment man dama jàpp ne gis nga PDS nii dañu nekk di di profité si xam nga ñii <laughs> ñii dañoo baax da ngay ñëw peut être nga si ñoom ñu non noonu la non <laughs> ñoom waruñu ànd man sama waruñu ànd ak PDS non bokkul non xaar na non xaar ma leeral la xaar ma leeral la parce que seen boobu moom vraiment posé na problème non li nga compagnonnage boobu nga wax noonu mm-hmm. cest à balaa nga koy tudd yow andi nga ci tontu ndax da nga ne les spoliés et les recalés mm. élection yi ku ci bokkul rek recalé nga. Mm-hmm. waaw. ñun ay spoliés lañu. Mm-hmm. bëgguñu tuddee suñu bopp ay recalé parce que recalé mooy quelqu'un qui a échoué. yaa may bëgg a nangul de. keroog wax naa la biir recalé du benn recalé recalé ak spolié du benn. dama ak recalé ñoo bokk ci front bi. c'est ñun. nanguñu recalé. Mhm. ni ma ko bañee woon keroog. ba léegi yaa ba léegi noonu laa koy bañ. spolié kon boobu waaw. recalé mooy ku mënul jàll. ku recalé mooy ku échoué. <laughs> ñun on n'a pas échoué. on vous échouer. non on nous a pas fait échouer c'est-à-dire ñun on nous a on de nos droits. parce que bu ñu taxee ne man ne je suis pas dans le fichier électoral. loolu je pas échoué. ça c'est un problème. parce que ñàkkuma dem def inscription. ñàkk euh, yàlla maa ngi sant am naa sama mun naa la ko jox léegi sama carte électeur ngeen def ko ngeen bàyyi ko fi élection yi passé voté naa boobu ba léegi wax musuma am ça fait plus de trente ans maa ngi voté dafa luñ la génnee te defuma li tax ñu war ma génnee du fii du bitim réew bu ma nekk boo xam ne mun nañ ma ko reprocher parce que hmm. maa ngi la koy wax nee naa la ba ci ba may déposé casier judiciaire bu France sax dama ko ci boole kon man su ma taxee ne dañ ma sàcc samay sama sama droit hmm. pour ma bokk ci élection yi dama loolu lay continuer di revendiquer ba keroog euh, ba fu ñu naan fi mbaxane wax fi mbaxane waree doonee benn <laughs> foofu moom ñett la fa doon donc ça c'est une chose maintenant Karim Wade duñ ci dellu soit ci débat boobu expliqué naa la par rapport ak la loi française mm-hmm. ce que j'ai pas apprécié mooy tey jii conseil constitutionnel bëgg a basé wu alors que ils ont jusqu'au jour du scrutin pour apprécier la nationalité de du candidat et le jour bi ñuy xamee ne ndax dañuy waxal nit yàlla moi je suis pas là pour défendre Karim Wade. Hmm. on se connaît mais je suis pas là pour défendre ko je suis pas xam nañ loolu chaque jour ma tooñ ko ma yoroo ne ko ba fu muy mujjee sama ginnaaw ngeen di toog donc euh, tey ji ñoom ba ñuy ba ñuy statuer di joxe seen liste définitive hmm. Karim était sur la première liste bi ñuy joxe liste définitive bi ils avaient le décret de de de de libération de Karim de sa nationalité française et pourtant ils ils l'ont écarté soi-disant par rapport ak bi muy def sa déclaration. Mm. bref déclaration sur l'honneur sur sur l'honneur bu mm. mm. fekkee ne loolu lañ koy toppee pour par par par jour. gis nañu après le cas de Rose du duñ ci dellu si. Mm-hmm. tudd nañ fi le cas de Khalifa Sall nee nañu il a renoncé à sa nationalité depuis 2015 ba ñu wonee un extrait du. mais par contre bu ñu wonee loolu ba mu ko amee la perte la nationalité sénégalaise ça c'est le code de la nationalité sénégalaise qui le dit. tout Sénégalais majeur ki acquiert une autre nationalité autre que la nationalité sénégalaise perd d'office la nationalité sénégalaise ah ouais doo renoncer bële dafa waroon bindaat pour demander à être réintégré kon mënoo boole ñaari nationalité mënoo ko boole la nationalité sénégalaise elle est exclusive. elle est elle est exclusive. ah mais loolu noonu c'est grave. non non xaaral xaaral xam fi bëriwul non mais moom laa boo dellee. article kon kon léegi Khalifa Sall moom ci ban situation la nekk. falaay ñëw noonu boo ci boo dellee ci article dix <laughs> euh, soo demoo ci article dix du code de la nationalité. loolu loolu la wax pour wan na la ne kon même bu fekkee renoncé na depuis foog def demande foog mu def demande de réintégration. mais am na en droit de la nationalité li ñuy wax. Euh, la nationalité de fait mhm. muy tey ñu ñu ñu jàppee la non non mooy nit ki nga ñàkk am nationalité ñu jàppee la comme ku am nationalité jox la ay nga nekk ci armée bi wala mhm. exercer ay fonctions yu tax koo xam ne ku am nationalité rek moo koy def loolu la ñuy wax nationalité de fait soo ko mënee prouver mhm. dañ naan kon ki am na nationalité même bu ko amul woon dañ ko koy nangul mais au delà de loolu ak processus bi ma la wax dañ ne la soo soo jëlaat jëlaat nationalité beneen bi nga jël même boo amaatee nationalité de fait pendant quinze ans vous êtes inéligible dans ce pays au Sénégal. Khalifa Sall est dans cette donc moom tey jii moom bu ñu toppee li nga xam ne moom la euh, loi wax rek pendant quinze ans warul dugg ci benn fonction élective. loolu nga ne si ban code la nekk. code code de la nationalité. loolu loolu foog ñu xool donc loolu moom mooy la réalité d'aujourd'hui te ñoom xam nañ ko donc muy moom muy keneen ku fi génne brandir sa nationalité ne wala sa sa sa de renonciation bu fekkee ne ne da nga ko def te xam na ne bi ngay jot nationalité boobu da nga ko jot par une naturalisation amoo ko parce que sa papa wala sa yaay moo ko doonoon mm-hmm. nekkatoo sénégalais su fekkee demande defoo demande de de réintégration hmm. de la nationalité sénégalaise te boo defee demande de réintégration bi suñ la réintégrer si pendant quinze ans munoo jël benn benn fonction boo xam ne élective euh, euh, euh, la le temps d'évacuer de probable certainement de Karim yaayam mooy français binational hmm, parce que moom bokkul parce que la loi bi dafay dafay constater ki def ki binational ak ki am hmm. la double nationalité parce que bële daf ko juddaale nationalité bi moo jiitu juddam mais bii da nga koo da daf la dab. da nga màgg dem wuti ka. donc donc xeeb nga sa bos. nga dem jëli bële. léegi jëli bi nga koy jëf moo tax nga perd bi le Sénégal nag est tolérant là-dessus vraiment kooku moom euh, même même sur le plan international les gens reconnaissent que le Sénégal est assez tolérant par rapport euh, à, à à son mm. code sur la nationalité loolu moo tax ñuy bàyyi yenn yi mu jàll mais suñ ko appliqué woon tey moom ci boppam war nañ ko mën a toppee pour parjure Khalifa Sall parce qu'il a été candidat en 2019 bi mu nekk 2019 candidat boobu fekkoon na il venait à peine de renoncer à sa nationalité française mm. donc il n'était plus sénégalais entre temps fal nañ ko fi maire maire de Dakar. Mm. bi ñuy ba ñu koy. fal nañ ko fi député fal nañ ko fi député nekkoon na fi ministre boo moytu yooyu yëpp ba mu koy def c'était un étranger la jëloon di ko di ko fal. alors peut-être peut-être que il n'est pas le seul dans la même situation mais comme je dis encore une fois. Euh, je veux pas me transformer en chroniqueur. mais juriste nga juriste nga donc am na yoo xam ne je préfère leeral yooyu bien sûr c'est pour wane ne la wax ak li am ñoom seen bopp xam nañ ne bu ñu toppoon tey yoon rek hmm. tey defe naa ne liste candidat yi dina gën a effrité wu par rapport ak nga xam moom la ñu am mais est-ce que léegi après incha allah bu ñu génnee si yii nii problème crise bi ñu président dugal nii mhm. bu ñu si génnee hmm. est-ce que c'est pas le moment aussi saytuwaat réew mi si après loi yeeg yooyu yëpp c'est bien mais nan la ñuy tànnee njiiti réew par rapport ak taxi yi ni ñu koy organiser ba nga xamante ni nit ñi dinañ mën a dem ci élection parce que lii tamit mooy suba mën nañu amaat ba même problème suñu bàyyee loi bi ni mu mel nii mm-hmm. mën nañ dem ba suba ñu jiiñ ne la da nga am double nationalité wala bi national nga wala mm-hmm. leneen nga mm-hmm. keneen ak parce que aussi conseil bi peut-être dafa newoon mën nga def boo doonee Euh, conseil constitutionnel ak ses prérogatives mm-hmm. ak li nga xam ne moom la ko constitution jox moom mm-hmm. conseil constitutionnel moom moo am prérogative saytu par tous les moyens mm-hmm. la véracité de la déclaration kooku dañ naan la non non candidat non dénonciation bi entre candidat bi kooku ça vient à posteriori okay. mais conseil constitutionnel mi recevoir les les candidatures moom moo am sañ-sañ bu Cheikh ñëwee ne ko ne dama bëgg a nekk candidat mu seet par tous les moyens parce que bu ñu fàttali ne. est-ce qu'ils ont les moyens. mais ils ont les moyens parce que xam nga tey jii tey loi bi ko organisé ba jox la pouvoir boobu. Hmm. jox na la les moyens pour que mën ko def. tey conseil constitutionnel la preuve xam bu ñu nee nit man France laa nekk. mënoon naa fa am condamnation kenn du ko xam mais tey conseil constitutionnel suñ ñëwee ñu ne ko mu gis ne ne ci samay document que ne kii nekk fi lan moo ko teree mu interroger tey ji l'administration française hmm. waay mais c'est c'est une simple procédure te nit dañ koy dañ koy dañ koy condamné fii mu def benn benn kii euh, demande d'exéquatur bu demee foofu juge le juge France daf koy appliquer. mais est-ce que dans les délais. mais dina recevoir xam nga fu mu ne nii xam lan lañ lay bëgg a. tiitale ce sont juste des informations. c'est des informations demande d'information. tey jii ñaata yoon nga dégg ñu ne nit sàcc na wala def na lii daw na ñu ne ñu ne ñu ne dénoncé nañ ko Interpol. wala nit sàcc na oto fenn lu tax boo demee di ded oto léegi boo koy pour pourquoi ñu naan la jaaral euh, dig mm-hmm. mais c'est parce que dañu bëgg boo yeggee inter pour vérifier parce que est que oto bi dañ ko déclarer mm-hmm. comme une voiture volée te loolu xëy na bu nekkoon le sujet di kii am naa ci ay loo xam ne mun naa ko ci wax parce que nekkoon naa di yëngatu ci domaine boobu mm-hmm. donc c'est juste pour wan ne am nañu matuwaay yi tax bu ñu jàppee Sénégal comme un comme un comme lambda boo xamee ne nu ñu def benn benn benn système de contrôle. Mm. tey jii su ma la woon plainte. boo demee jaar aéroport war a dem doo génn parce que fekk na ñu def signalement boobu. pour wane ne ne ne waroo mm. traverser les frontières. Mm-hmm. donc tey jii conseil constitutionnel ni mu mënee def dem saytu candidat bu nekk ban kan moo ci am am condamnation ou pas. Mm.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 xam naa ne xam nga ci dara pour <laughs>